jërë ngeen jëf mbokk xaritu internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaar ko ci nekk ci turam ak sant te am mbégte bu baax a baax di leen dalal di leen dalal ci seen émission édition spéciale comme ni ñu koy faral di defee chaque émission tey nag édition spéciale ñu fas yéene ci euh, dalal ki nga xamante ne nii moom mooy docteur Mbaye Guèye donc wala euh, adjoint au maire nekk euh, chargé de santé fii ci mairie Kaolack ñu fas yéene waxtaan ak moom lépp li nga xamante ni concerne euh, lii di santé rawatina ci programme bi nga xamante ne ni amal nañ ko docteur lay sant di la gërëm bu baax a baax di la remercier aussi di la wax bienvenue et puis merci ci ni ñu recevoir vraiment aussi ci sa disponibilité ak li nga xamante ne ni saa su sa réew soxlaa concerne ci li nga yëngu mooy wàllu santé da ngay wuyu si askan bi et puis apporter ci sa sa xam ak sa contribution aussi sa ak sa taxawaay bi nga xamante ne am nga ko en tant que adjoint au maire nekk euh, chargé de santé donc di la bàyyi euh, nga nuyoog internautes yi bu ko defee ñu revenir at et yaatal waxtaan bi. donc euh, salaamaaleykum euh, askanu Sénégal salaamaaleykum mbokki Kaolack ñoo ngi leen di nuyu di di leen ziar di ndokkeel si weer wi nga xam ni mooy octobre sunu mbokk jigéen ñi nga xam ni ñi ngi feete octobre rose donc ñu ngi leen si jaajëfal. di wax ni rek euh, euh, lii ñuy cause bi ñuy xeex euh, cause bu noble la yàlla na leen si yàlla may mbay ndam et également di massawu population sénégalaise d'une manière générale en particulier population Kaolack si lii nga xam ni jafe-jafe yi nga xam ni am nañ ko si nawetu ren bi mais loolu lépp lañ koy delloo si ay xéewal parce que ndox moom xéewal rek lay lay indi donc ñu ngi leen di massawu si jafe-jafe yi ñu si am yëpp di am yaakaar ni léegi nawet bi jeex incha allahu euh, kenn ku nekk delluwaat si activité am si nu mu gën a rafetee. dooree ci actualité yi nga xam actualité santé donc ci jeudi bi ñu génn tey la vendredi jeudi bi ñu génn 10 octobre tey mu nekkoon journée internationale de santé mentale. donc wax santé mentale et puis sur la région de Kaolack nga xam ne fii Carrefour la donc nemmeeku nañ ñu ci gis vraiment ay dof yu bare bare bare bari dem ngeen doon amal journée bi yow nga représenté woon foofu en tant que adjoint au maire responsable de santé amoon ministre ba tey bëggoon nañu xam ak yan ak yan programme ngeen xaatim jëmale ko ci li nga xamante ne ni moom mooy ñi nga xam ne am nañu feebaru dof rawatina ci Kaolack bi ñu nekk waaw euh, euh, ñu ngi euh, rafetlu programme bi nga xam ni Euh, le ministère de la santé boo ànd ko ak euh, euh, la direction régionale de la santé ak l'ensemble des acteurs de la santé les autorités territoriales ak administratives daje démb ngir waxtaanee lu nga xam ni lu am solo la muy naka la ñuy defee de telle sorte que lii nga xam ni ay ñoo xam dañu dañu bokk ci société sénégalaise yàlla def ñu am ay ndog-ndog ñooñu naka la ñuy def. ba de telle sorte que euh, li nga xam ni mooy une exclusion sociale loolu ba ñoo bañ ñoo dal et parce que euh, doomu aadama euh, ñaari pàcc la am physique am ak mental am nit ñi souvent dañuy jàpp ni ki nga xam ni moo xotteeku rek di sànni yëreem nekk ci mbedd mi kooku moom lañ war a jël prise en mais am na ñoo xam ni ñu ngi dans nos sociétés dans nos maisons dans nos entreprises di dund loo xam ni sur le plan psychologique Euh, euh, ñooñu également c'est des personnes qu'il faut prendre en charge parce que dañuy dund loo xam ni lu lu lu metti la et souvent euh, loolu bu la xale bu la xasee daal mooy du ma ko tuddee sax man damay rafetal kàddu gi boo amee tuuti problème si xel nit ñi da ngay am lu ñuy tuddee une exclusion sociale boo demee nit ñi dañ lay boddi et loolu il faut que ñu sensibiliser la population nit ki boo ko boddee rek jàngoroom day yokk nit ki bu nekkee ci boobu situation li gën mooy fexe intégré fexe lu ko intégré intégré waat dans la société mu dund les réalité sociales et loolu mooy tax de très rapidement muy retrouver ses ses esprits. lu ci mel nii tabax ay centre de récupération xam nga wala soit jàppale nit ñi wala def ay campagne de sensibilisation jàppale dof yeeg yooyu mairie bi yan taxawaay la ci am ak yan programme la ci teg jëm ci ñooñu. en tout cas li mu wax rek mooy programme bi am démb mairie partie prenante la woon si programme bi parce que euh, journée mondiale la woon mairie partie prenante la woon si organisation bi. et je pense que tey centre be euh, centre Assam bi nga xam ni euh, moom fa la fa la ñuy interner les les personnes yu xaw am am jafe-jafe centre boobu terrain ba mairie de mairie Kaolack. bon du temps de na moom moo ko defoon délibération pour jox ko ko en plus de cela ñun ren bi nga xamee ni ñu ngi koy waaj a ubbi euh, am nañ fa appui taxawaay bu am solo jàppale l'association ba euh, ñu reprendre leur leur activité donc et sur le plan programme dañuy muuleewu rek si programme bi nga xam ni moom la l' état du Sénégal le ministère à travers le euh, ministère de la santé à travers la direction de la des des maladies euh, de la de la maladie waaw donc euh, yooyu si programme yooyu la ñuy tënk bon sur le plan spécifique à Kaolack bon xam naa ni nag soobaguñ ci loolu parce que en fait li décentralisation ni ñu ko tëggee peut-être moo indi jafe jafe-jafe yooyu mais sur le plan psychologique sur le plan social mairie de Kaolack euh, am na apport bu am solo boo xam ni ñu ngi koy dimbalee nit ñi nga xam ni euh, nekk nañ ci ay ay jafe-jafe. tey aussi nemmeeku nañ ci semaine passée vraiment ñu am benn euh, journée de lancement de campagne de vaccination contre le cancer du col et l'utérus tey ku wax cancer col et l'utérus donc di nga wax ci nemmeeku ci forcément ci ci xale yi ndaw yi nga xamante ne vraiment ci moom la ëpp lu muy dal yow nga woon fa ñu gis la fa donc mooy image yooyu ngeen di seen tey ji euh, programme bi tey bëgg nañu xam ci programme bi ak aussi lan moo waraloon sa teewaay foofu donc ak aussi nan la ko mairie bi euh, taxawee yow nga dem représenter leen foofu. waa lutte contre le cancer du col de l'utérus donc euh, bi nga xam ni benn virus bu ñu tudd papillomavirus moom moo koy joxe euh, dafa nekk loo xam ni lu lu loo xam ni lu ñu war a taxaw la parce que gis nañ ni cancer du cole de l'utérus ak cancer du sein. nekk na ñaari jafe-jafe yoo xam ni dinañuy lor suñu mbokk jigéen yi lu gën a bëri bëri bëri et loolu nag yàlla def na euh, am na benn xeetu traitement boo xam ni buñ ko defee en prévention euh, balaa xale bi nekk en contact avec le le le le virus euh, bu fekkee def nañ ce traitement là très rapidement dinañ aar xale bi si si boobu jàngoro. dinañ ko en fait mën nañ dinañ ko aar si si jàngoro ji et dañu jàpp ne donc euh, ministère de la santé si euh, euh, par rapport ak études yi ñu def par rapport ak disponibilité bi ñu jàpp ne ren jigéen xale ndaw yi nga xam ne entre 9 et 14 ans ñooñu la ñu choisir pour vacciner leen mais ñu bu ñu bu ñu au-delà de de 9 à 14 ans kenn ku nekk rek boo juddoo rek balaa nga nekk en contact avec le le le virus. normalement war nga dem war nga mun a dem vacciné wu bon peut-être que c'est un problème stratégique moo tax ñu jàpp 9 à 14 ans mais mënul nañu jël au-delà de 9 à 14 ans euh, xale bu xale daal bu jigéen boo xam ne tant que nekkagul en contact avec le le virus la en principe war nañ ko mën a mën nañ ko vacciner vaccination boobu mu nekk loo xam ne dina ko aar si jàngoro bi nga xam ni day def un lourd tribut à à la santé voilà. léegi euh, contre euh, concernant ak aussi mooy euh, virus boobu léegi yéen mairie bi ban ban ban programme de la ci jël concernant sur le plan régional aussi. waaw xam nga ñun mairie am na programme bu am solo boo xam ni donc dañ ko def pour lutter contre la mortalité infantile e la mortalité maternelle ñu signé ko ak benn partenaire bu ñu tuddee TCA TCA c'est un programme américain depuis presque un an ñu ngi liggéey ak ñoom. Euh, donc euh, ce programme là lépp loo xam ni dina lor doomu jàngoro ci wàllu santé de la reproduction euh, dinañ ko dinañ dinañ ko jël en charge et loolu sa fait plus de un an tàggat nañ ay ndawu santé mais également fan yi ñu jëm dina am benn programme boo xam ne dinañ ko jël pour tàggat les élus les élus locaux loolu lépp pour les sensibiliser sur la santé de la reproduction d'une manière générale ok bëgg nañu aussi tamit ñëw ci vraiment euh, ci ci ci seen programme de santé tey donc en tant que adjoint aussi chargé de santé de la maire bi tey bi ngeen arrivé ba léegi fekk ngeen fi huit milliards aussi ñu ngi dégg ne huit milliards ngeen fi jëlee pour santé yi ngeen fi fekk yokku ngeen ci vingt cinq mille vingt cinq millions huit millions astafirullah pardon fekk ngeen fi huit millions yoo xamante ne nii bi ngeen arrivé ci mairie bi ba léegi jële ko de huit à vingt cinq tey bëgg nañ xam loolu yëpp. ci yan ci programme ngeen ko def est-ce que da ngeen ko renforcer ci médicaments yi wala soit da ngeen jàppale personnel yi wala soit da ngeen euh, investir ci côté matériel et tout ça programme bi bëgg nañ ngeen expliquer ñu baax a baax à travers les vingt cinq yi nga xamante ne moom ngeen ajouté donc fekk fi huit donc nga nga expliquer ñu tuuti. waa en fait euh, c'est sunu c'est tout un ensemble de programme bi nga xam ne dafay concerner les infrastructures mais également naka la ñuy. prise en charge bi naka la li ñuy fajee fajuwaay naka lañ koy yombalee ensuite naka lañuy def pour que ñiy faj également ñu tàggat leen euh, euh, également fair en sorte que le personnel dañuy am personnel de de qualité loolu nag du nekk loo xam ni ci benn ñaar ñetti at lañ koy def donc ñu commencé suñu première année euh, li njëkk a def mooy faire saytu lan mooy jafe-jafe yi Euh, ñu ànd ko ak district sanitaire ànd ko tous les acteurs yi nga xam ne dañuy gravité au niveau de la santé ba xam vraiment jàngoro jàngoro santé dans les postes de santé ak Kaolack et li si njëkkoon mooy euh, gis nañ ni poste de santé yi tey nit ki fu muy nekk di liggéey nga fekk ko fa bu fekkee ni dafa nekkul si si anam yu am solo yoo xam ni yu yu yu yu baax la ah, dans un foofu pour mu faj fa liggéey fa du am sax envie liggéey ñu ni donc li njëkk mooy nañ fexe en de telle sorte que c'est euh, euh, ce personnel de la santé la ñu fexe ba defaral leen fi ñu nekk et donc comme sunu compétence 20 postes de santé la woon donc ñu ni première année bi nañu réfectionné 10 10 yëpp ñu jël leen ko yóbbu aux normes mais également sur le plan de la prise en charge xam nañ ni garab yi nekk na loo xam ne day indi lu jafe la pour pour les populations et tey initiative de Bamako bi nga xam ne moo nekk dans les postes de santé ñun bi ñu ñëwee euh, de tout temps fukk dix millions de francs CFA la maire di mas di jox ñu ni ah 10 millions xëy na bëri na mais boo calculer soo defee sur les 20 postes de santé euh, da ngay gis ni loolu dafa nekk lu néew ñu ni sunu programme nañ fexe ba garab yi ñu disponible dans les postes de santé donc boo xoolee non seulement dañ ko presque dañ ko dañ si toog la moitié plus plus euh, plus d'un euh, quart quinze pour cent d'augmentation def nañ ko donc muy nekk loo xam ni ça nous a fait passer de 10 à 25 millions mu nekk loo xam ni lu am solo la parce que garab yooyu nga xam ne ñoom dañ ko jëlee si au niveau de de de de PRA wala PNA ñoom bu ñu ko jaayee day générer ay bénéfices bénéfices yi non seulement euh, ñoom mun nañ ko jël yeneen activités yoo xam ne dañ koy def si biir poste de santé maanaam jël ay euh, ay bénévole di leen fay pour euh, yokk le personnel le le le les CDS mun nañ ko si bénéfice boobu ñu tiré mun nañ ko utiliser pour des ci loolu mais également ça leur permettra également ñu yokk yokk seen stock de telle sorte que garab yi manqué dina wàññeeku au niveau des postes de santé donc si jumtukaay day nekk loo xam ne lu lu am solo la. ensuite euh, pour la la la la la la deuxième année on s'est di que également bul fàtte ni euh, xeex yenn feebar yi lu mel ni siburu. nekkoon na également au cœur de nos activités donc si loolu c'est un package la woon boo xam ne teg ko li si njëkkoon mooy fexe en sorte que euh, dëkk bi ñu def euh, ay ay comment on euh, setal ko def des campagnes de saupoudrage mais également def ce qu'on des campagnes de délervation ak les les services d'hygiène en plus de cela nous avons signé un partenariat avec euh, trois, le 3, comment on l'appelle, Cap Santé, dans ce, dans ce programme, la mairie s'est engagée à faire de, de, la lutte contre le paludisme une de ses, de ses priorités. Donc pour vous dire que euh, vraiment, Togognou et en perspective pour les années à venir, euh, tey gis ñu également jigéen ñi bu ñuy mucc souvent dañuy nekk si ay jafe-jafe bu ñu évaluer ñu gis ne am na poste de santé yow ko xam ni ba léegi amaguñ fi nga xam ne sage bi fa la war a dëkk te loolu day indi jafe-jafe lu ëpp jigéen gi buy mucc guddi euh, lay doon bu ñëwee fekk sage bi wàcc et loolu mën na indi ay loraanga yoo xam ni lu lu lu lu lu grave la et moo tax ñu ni euh, poste yi nga xam ni amaguñ logement sage-femme dañ koy commencer cette année cette année commencé nañ ñaari poste de santé ñu ngi koy tabax tey boo demee Medina Mbaba commencé na Medina Mbaba ak euh, Touba Ndorong donc ñaari poste de santé yooyu euh, dinañ fexe ba euh, fii ak fin d' année incha allah ñu am losement de chasse femme et donc muy loolu am solo et dans les années à venir comme ni ñu ko waxee c' est un programme le programme va continuer on va vers ce qu'on appelle la dotation de matériel gis nañ ni également manque matériel pour ñu def des soins de qualité am na et le maire a donné des instructions fermes pour que en année 2025 bi ñu jëm poste de santé le déficit en matériel même buñ ko mënul résorber de manière euh, significative totale mais au moins dañ def ay jéego yoo xam ni ku nekk xam na ne bu ñu ñëwee en terme de euh, de dotation en échographe en terme de dotation en en en matériel yenn yi ñuy utiliser pour pour pour le le matériel de diagnostic de tensiomètre et cetera et cetera et également cette année gis nañ ngeen ni également euh, am na loo xam lu am solo la doom aadama bu génnee àdduna Kaolack dañ jàpp ni dañ mës a gis ni Kaolack bi plus de plusieurs années kenn mosu gis mairie Kaolack am euh, un corbillard tax ku nekk xam ne dund ak dee ñoo ànd Kaolack également fexe nañ ba euh, comme ala kulli aalin loolu du jaas bëgg nañ doomu aadama bu génnee àdduna ñu suturaal ko deg ko si loo xam ne lu rafet la euh, lu lu lu lu xam ne dina ko suturaal ñu dem jébbal ko boromam et loolu également si si sunuy action la la la bokk ok docteur Sànq da nga wax benn wax bu am solo mu mu bokkoon ci laaj bi mooy ci jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy mucc ñooy am doom guddi la plupart guddi la ñu gën a amee doom ñu nemmeeku aussi foofu négligence bi dafa bari lool lool lool lool lool trop ci personnel yi sànq wax nga ci logement de sages-femmes yi nga xamante ne ni donc loolu dina xaw a dindi tuuti par rapport ak euh, yenn jafe-jafe yi jigéen ji di am suñuy am doom suñuy matu maanaam euh, tey mais aussi parfois jigéen ñi dangay dem aussi fekk leen duñ la war a toppatoo xam nga donc équipe du fa am donc ni la war a saytoo ni la war a toppatooyee daal duñ la ko toppatooyee ba nga xamante ne ni ñenn ñi ci saali la amee doom ñenn ñi ci buntu yi ñenn ñi ci cour yi donc loolu lan la ci maire bi lan la ci maire yi lan la ci lan mooy taxawaayu maire yi ci loolu. waaw mooy li ma waxoon euh, donc booy xool loolu li ko def ñaar la manque d'infrastructure ak manque de personnel donc infrastructure bi gis nga ñu ngi siy dox ay jéego. deuxième troisième euh, d'ici ñu fi jóge également en terme de personnel de santé également bëgg nañ fexe même personnel de santé bi fi ne sax gis nañ ni am na si ñoo xam ni laaj na ñu ñu ñu tàggataat leen et je pense que li ñu mébét mooy fexe ba école de santé yi nga xam ni ñu ngi fi nekk di euh, former ay sages-femmes ak infirmier ñu fexe ba lëkkalook ñoom seet ba ba de telle sorte ñoo ñooñu nga xam ne ñu ngi si hôpital te seen formation des tuuti ñu yóbbu leen fa gën leen tàggat pour que ñu teg nekk au top euh, loolu de je pense que euh, c'est un programme kon on est qu'on en train de réfléchir on est en train de discuter de de la faisabilité et loolu bu ñu si paree également am na si xale yoo xam ni ña nga foofu dinañ seet naka lañ ñi ci mën a jël ñu jël ko en plus de cela il y un programme de création de nouveaux postes de santé xam nga ni euh, avec des programmes comme le PADES Euh, euh, am na programme boo xam ni euh, lu mel ni comme on l'appelle kii comment on l'appelle camp des gardes waaw commencé na am na ngaan war nañ fa defar benn poste de santé yaa a y a ensemble de de postes de santé yoo xam ni bëgg nañ faire en sort que travaux yi commencé nañ faire en sorte que ñu def le tout pour livrer ko aux populations de ce fait ñu wàññi yenn jafe-jafe yi ok tudd nga ngaan tudd Kandagard mais am na ci ay gox yi nga xamante ne tey ku ci mel ni Daaru Salaam quartier bi dañu yàgg revendiquer ci génn ci média bi euh, di wax ne dañu soxloo quartier poste de santé tey nga nekk fi chargé de santé nekk adjoint au maire tey ji euh, question bi nga xamante ne population bi yàgg nañu posé au maire di ko vraiment di ko wax ci place publique bi tey ban ban réponse nga ci mën a indi donc en tant que responsable santé mais aussi nekkal fi maire waaw euh, face kii Daaru Salaam man sama bopp dem naa fa visité naa site bi nga xam ni euh, moom lañ prévoir pour def poste de santé donc mais xam nga euh, euh, budget ay comment on l'appelle ay ay stratégie la ay calcul la ndax lii mën nañ ko lii mooy priorité et cetera et cetera donc mais suñu xel mosul jóg ne comment on l'appelle Daaru Salaam mu nekk population boo xam ne population bu am takku la population bu bu bu bu am solo si commune Kaolack Euh, nekk situation boo xam ni je pense que mérité nañ euh, ñu am poste de santé et je pense que loolu sunu conseil municipal bi ak débat d'orientation budgétaire bi ñu jëm on va poser les problèmes seet euh, yan stratégie lañ mun a def de telle sorte que comme ni ñu ko defee fële face Cheikh Tidiane. docteur Sànq wax nga fi ci ay programme ci ay réflexion tabax. donc tey jii mën nañu am benn date boo xamante ne ni concerne ak l'année prochaine parce que année bii mu ngi jeex ah tey est-ce que mën nga ñu wax loo xamante ne ni tey concerne ak travaux yi nga xamante ni dañ koy def ci santé parce que santé nekk na loo xamante ni vraiment donc besoin urgence la ci ci ci dund bi rawatina fi ñu toll nii rawatina sax sans famille jigéen ñi nga xamante ne vraiment euh, ñu ngi matu. guddi kii la ñuy ëpp di matu donc voilà ak yenn euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñu koy jànkonteel tey euh, lan nga ñu ci war a mun a jox loo xamante ne nii tey lu tembere lay doon. xam nga euh, comment la l'appelle mise en place budget tant que tegaloo sa budget loo xam ni ngay def et je pense que lancer nañ le débat d'orientation budgétaire depuis notre dernier conseil municipal le 28 passé. Euh, li si des nag mooy ay waxtaan lañ au niveau du conseil municipal parce que quartier bu nekk dangay ñëw ak sa sa sa sa sa sa sa natt sa naal léegi nag li si des nag ay waxtaan la en terme de priorité est-ce que defar tali moo priorité est-ce que euh, defar poste de moo priorité est que defar école euh, loolu ay waxtaan la yoo xam ni au niveau du conseil municipal foofu lañ koy décider et loolu tant que eggaguñ si boobu programme mënaguñu mënaguñu wax ni tel ou tel tel 2025 lii la ñuy teg ak teg mais au de après le budget mais instruction bi leer daal bi nga xam ne maire joxe na ko mooy nañ faire en sorte que euh, cette année que les postes de santé ñu doté leen de de de de comment on euh, de matériel loolu si benn la maintenant en terme de de création en terme de de de de naka la ñuy def loolu si si débat d'orientation budgétaire euh, bi nga xam ni commission santé dina fa taxaw commission santé moom moo naan. ah lii lañuy soxla cette année et en ce moment ñu ñu ñu ñu def ko priorité euh, mu jëm dem si si dans le budget global ñu fexe nan lañ koy pousser pour mu pour ñu ñu def ko ñu ñu ko docteur ñu ngi lay sant di la gërëm di la remercier ci sa disponibilité ak ci sa taxawaay comme ni ma ko waxee ci njëlbeen nekk nga koo xam ne vraiment ci mate nga li nga xamante ne ni moom lañ la tegee ci mairie bi en tant que euh, responsable de santé ndax fu santé laaj yaa ngi woote yaa ngi fay taxaw te et puis vraiment lépp. saa yi ñu la soxlaa ci li nga xam ne concernant ak santé da ngay taxaw wane bàyyi sa temps bàyyi sa itépp loolu yëpp dafa woon ne vraiment donc li nga occupé bëgg nga ko te yaa ngi koy def ni mu waree donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la wax nga tàggatoo et puis sa mot de la fin incha allah te lép li nga xamante ne vraiment sumb nga ko te li nga fi wax yëpp yàlla dimbali la ngeen eggali ko ci jàmm ak salaam et puis mu doon lu njëriñ pour sénégalais yëpp incha allah bu soobee yàlla sa mot la fin. waaw di leen jëfal rek si occasion bi ngeen ma may euh, ngir ñu waxtaanee li nga xam ni mooy euh, les problèmes de santé euh, de de de manière générale et également li nga xam ni mooy le programme sanitaire bi nga xam ni ñun teg nañ ko li ñu fi jot a def ak mébét yi ak naal yi nga xam ni sumb nañ ko pour de de parce que programme maire Serigne Mboup ñu fàttali 2035 la moo tax te boo bokk évaluer rek di nga gis ni def nañ jéego yu bëri bëri bëri bëri bëri je pense que euh, d'ici deux trois ans problème yu bëri incha allahu dinañ ko dinañ si def sunu kéemtalaay kattan et je pense que ñun boo gisee ñu summeeku euh, lu ñu lu ñu tax ñu summeeku rek mooy promouvoir sunu sunu communauté sunu communauté mooñ tax a jóg lépp lu communauté bi sox communauté bi soxla Ah, bëgg nañ ci am taxawaay boo xam ni euh, euh, dina dina nekk loo xam ni euh, ñëpp dinañ ko rafetlu e ñoo ngi gërëm le maire Serigne Mboup bi nga xam ni moom jox nañu confiance ngir que ñu loolu nga xam ni moom la ñu dénk muy santé lépp luñ ñu soxla bu ñu si waxtaanee ak moom. Euh, mu jox ñu si accord nañu exécuté leen jëw doon carte blanche def si li loo xalaat ni rafet nag rek def ko loolu aussi dañ ko si gërëm di gërëm l'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Kaolack si solidarité bi nga xam ni am nañ ko s'il y une priorité boo xam ni tegu na sur la table naka lañ koy aborder euh, loolu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan nawet bi yàlla jeexal ko si jàmm euh, li si sax si meññeef yàlla na ko population Sénégal jëriñoo Sénégal nekk loo xam ni dëkk bu naat la euh, élection yi jëm au mois de euh, novembre prochain yàlla nekk loo xam ne élection yoo xam ne élection yu dal la kii nga xam ni moom la population yi ñi nga xam ni moom lañu population yi tànn pour ñu nekk la représentation au niveau de l'hémicycle yàlla def ñoo xam ni mission bi ñu leen tànnee ñu doxal ko si si li nga xam ne noonu la war a demee donc loolu moo doon kàddu